gueoultv.com yàlla na yàlla loolu ci sutura bi jaay saytu bu jur yàlla tabaaraka wa taala moo nu wax ni su ma leen joxee xéewal ngeen sant ma man mi nga xam ne maa lépp dinaa leen dolli te yàlla bu ma waxoon dinaa la dolli wax kon nu sant ko bu baax baax lii nga xam ne man ñaaka ko def ñu lu baax te yéen jullit yi lu baax muy xaaji Ousmane Kayra tarhammahu Allahu bi rahmatihi waasi wa askanahul janna maa alladina anama Allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa suhada wa saalihin moo ko soxla lii muy julli koo xam ne nag sallallahu alayhi wa moo ko baaxoon bàyyam bu ndaw waaye nag baax na ko xamee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko wax yaa yaa maa yow suma bàyyi tax as ka ñëw ma may la wala doo ñëw ma bokkal la ba ma bokkal nag day wane ne mbir mi mbir la moo xam ne yëfi bopp na doo ñëw ma may la kaay ma sag la julli goo xam ne boo ko jullee sa bàkkaar yi jëkk yi yàlla dina la ko jéggal sa bàkkaar yi mujj yi yàlla dina la ko jéggal mu ne ko boo ko jullee nag tamit sa bàkkaar yi nëbbu ak yi feeñ yépp yàlla dina la ko jéggal boo ko defee bàkkaar yi nga tey ak yi nga teyul yépp yàlla jéggal la yow sama bay bu dox julli julli googu soo ko mënee nag dee ko def bis bu nek soko mënul ba mënul loko dé ko def saman bu nek jullee ñi nit yaa rasulallah alayhi salatu wasallam mu ko boko mënulé nak dé ko def par bu fekkenté nak xat nga ba xat góor at ak ne nga def ko at bu nekk rek jullil julli gi mun ne boo demee nag ba mu mënuloo ko dëgg dëgg dëgg góorgóorlu parce que dund ala ngaa dem bar sax julli julli gi mu di ko julli mu ne ko mel ni dañ ko laaj ne ko waaw bu ma ko jullee lu ma ci yàlla mu ne ko boo ko jullee sa bàkkaar yu jëkk yàlla na la ko jéggal yàlla sa bàkkaar yu mujj yàlla na la ko jéggal sa bàkkaar yi nga tey yàlla dina la ko jéggal ginnaaw julli nga julli bàkkaar yi nga tànnoon teyaloo ko yàlla dina la ko yu feeñ ak yu nëbb góorgóorlu ci julli gii góor gi xaaj Usmaan Kayre nag radiyallaahu anhu ba muy yër di yër ba yàlla woon ko mu gis julli googu mu ne lii daal yéen naa ko xeetu yonent bi lii daal dinaa fexe ba sox ko sosin woo xam ni dana fi yàgg julli googu nag moom lañ fas yéene julli léegi nii di ko teg ca teguwaay ba di ko teg ca na ko mag ñu doon defee wa nabtahilu amaama al-ali al-qadir ونتوصل إليه بجاه سيد الوجود عليه الصلاة والسلام أن يتقبلها لنا بفضله وجوده وكرمه إنه ولي ذلك كل والقادر عليه su ko defee kon nag ñu fas ko yéene julli ñu ñaan Mawlana subhanahu wa bu ñu ko jullee yàlla yàlla boole na ko nangu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. ¡Ah!